asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa Sénégal tey nag sama tata bi laa bëgg a waxal baax si man gën ci man nga xamante ni daf ma bëgg yéemaloo kenn bëgg ma comme ni koy waxee rek boo xamoon li nga koy def namu la dafa tax man tata tey xaw ma sax mënuma sax wax muy tata François Hélène Gueye bëgguma sax di jaar sa tool ndax li nga def ci man la tata maa ngi lay ñaanal ku dafa nag wér gu yaram gis naa chaîne bi moom laa sol ni ak yére bi gis naa lépp greffage lépp saak yépp yegg si nañ tata tata yan la fi yàlla baa yàlla musal la ci cat ak laamañ ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ni ma taxawoon nag ñépp gis nañ ko taxawal sama famille sama maam sama papa ñoom ñépp nga taxawuñu taxawuma jooyuma dara ndax yow tata dama lay ñaanal di la ñaanal yàlla bàyyi la fi nga fekkee sama njëriñ fekkee say njëriñu doom nga toog ba say doom di la teral nga toog yàlla bàyyi la fi nga dundu ba dootoo mënale sa boppu dara ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ma la fi yàlla bàyyi tata Hélène mën daal yaa xam li nekk sa xol yàlla na ko yàlla may ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass nee naa la su la neexoon sax nga toog bañ maa defal dara mais yéene bi rek yéene bi ma yéene rek xam naa ko waxatuma la nag nga may defal jour tabaski ku nekk xam na ne jour bu spécial la nga yëkkati si yére teg ci ay chaine teg ci lépp jox ma man kay dama lay ñaanal yàlla tata yal na la yàlla fay sa xol ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass waa CODAS maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp.